Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à la Télé Futur Média. Bienvenue à ce bulletin d'information. On commence d'abord par cette mort par noyade d'un déficient mental âgé d'une quarantaine d'années. Le drame s'est déroulé à Yembel Ben Barak. Il s'agit d'un homme qui s'est noyé dans un lac artificiel. Les recherches se poursuivaient hier, mais les sapeurs-pompiers n'ont pas encore retrouvé le corps. Nous y reviendrons dans notre édition de 8 heures avec le chef de quartier de cette localité de la banlieue dakaroise. À Wakam, les jeunes ont encore remis ça. Ils ont manifesté hier, barré des routes, brûlé des pneus à l'occasion de leur manifestation consistant à réclamer des terres à Makiou Faye. La gendarmerie est intervenue pour arrêter la manifestation à Diatala. dawu Wakaam yu ne woon dinañu wàccaat ci tali bi def nañ ko diggante benn waxtu ñaari waxtu wàcc nañu ci mbedd wokaam yi daal di baare tali yëpp ak ay doc taal ay pneu daal di gàllankoor dem bi ak dikk bi takk der yi daal di teel wàcc si tali wokaam yi ak seeni pick ñu daal di séq gox gi yëpp tax ba ñenn ñi doon fippu dellu ginnaaw ci biir wokaam ñi yor seeni xeer takk der yi ak seeni ngànnaay ñi di sànni ay xeer ñeneen ñi di sànni ay grenade lacrymogène saxaar si daal di jolli des habitants de Wakam ont mis à exécution leurs menaces. Ils avaient promis de descendre dans la rue. Entre 13h et 14 ils ont spontanément érigé des barricades sur les grandes artères très empruntées de Wakam, brûlé des pneus, entravant la circulation. C'était sans compter sur la promptitude des forces de l'ordre qui sont vite intervenues. À bord de pick des dizaines de gendarmes ont vite quadrillé le quartier de Wakam, obligeant les manifestants à se Ensuite, manifestants armés de pierres et force de l'ordre de grenades lacrymogènes se regardent en chaîne faïence. Ils échangent sporadiquement des jets de pierre contre des grenades lacrymogènes, polluant l'air et indisposant les passants. Certains de ces derniers sont même obligés de descendre des taxis ou cars de transport pour faire tout le reste de leur trajet à pied à cause des barricades. Même les personnes âgées sont obligées de se plier à l'interdiction de circuler. La circulation a repris timidement vers 15 heures. Les éléments de la gendarmerie veillent toujours au grain à cause de la menace des manifestants qui n'excluent pas de revenir manifester leur courroux pour exiger la restitution de leurs terres. Politique Khalifa sala apporte son soutien à Aïda Mbodj récemment destituée de son poste de présidente du conseil départemental de Bambey. Le maire de Dakar dénonce la procédure utilisée par les autorités, procédure qu'il juge illégale. Voici le maire de Dakar au micro de Aminata Mbaré Sow Mohamed Dieng. Vous savez, la loi est la loi. La loi, quand on l'applique, il faut l'appliquer entièrement. Il est vrai que le cumul est interdit. Mais la procédure, la méthode utilisée a failli. Parce qu'on ne peut pas destituer Aydembo sans la mettre en demeure. Cette mise en demeure n'a pas eu lieu. Donc il y a quelque part un manquement. Mais puisqu'elle a décidé de soutenir la justice, nous sommes tous avec elle, nous la soutiendrons dans son combat. Khalifa Sall s'exprimait hier en marge de la commémoration de l'anniversaire de l'esclavage. Parlons maintenant de ce colloque s'ouvre ce matin à Dakar. L'IDHP, l'Institut des droits de l'homme et de la paix, organise ce colloque consacré à l'université et à la société Beaucoup de thèmes sont attendus, notamment le rôle de l'université dans la société. À ce propos, nous écoutons les explications du directeur de l'Institut des droits de l'homme et de la paix. Il s'agit du professeur Sambatiam, interrogé par Mondofal. Nous voulons réunir la grande famille universitaire que les enseignants, les syndicats, les parents d'étudiants, la société civile, les entreprises, la société, disons, globale, euh, de manière euh, brève, qu'elle euh, reparle de l'université, de la place de l'université en son sein. On en reparle parce que la société évolue, elle change, il y a de nouvelles euh, situations, les nouvelles technologies, les progrès techniques, scientifiques. Là, elle est toujours là, l'université, elle garde toujours sa vocation traditionnelle. euh, le temple du savoir, euh, le lieu de la pensée, mais il doit s'adapter, s'adapter à la marche de la vie. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. La suite de Yeolen, c'est tout de suite avec Pape Cher Diallo. Merci Chérif, c'était le premier journal de ce matin. Regardez derrière, un grand technicien s'occupe de moi. Je vous explique après tout à l'heure ce qui se passe exactement. Mais mu ngi may xoj de voilà, il est en train de sortir, ce qui me permet d'entendre le réalisateur. Merci Chérif dans quelques minutes on te retrouve ce sera pour euh, yéenekaay yi ak seeni xët laataa ñu koy xóotal pour revue de presse bi ak Mamadou Mohamed Ndiaye en attendant on retrouve euh, Zeyna pour euh, météo bi bonjour Zeyna. bonjour Pape Cheikh. naka jaww ji. jaww jaa ngi fi Pape Cheikh tàngoor bi di dugg si ndànk-ndànk nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan te di leen wax ne fii ci Dakar tey yeewu nañu ak 28 degré Saint-Louis 25 Podor 26 degré Matam 28 Linguère 25 degré euh, Diourbel 25 degré Kaolack 26 degré Tambacounda 26 Ziguinchor 24 Kolda 25 degré Kédougou 26 degré. ci ngoon gi euh, Dakar dina am 28 degré Saint-Louis 39 Podor 44 Matam 45 degré Linguère 43 degré Diourbel 42 degré Kaolack 41 Tambacounda 43 degré Ziguinchor 40 Kolda 42 Kédougou 44 géej gi nag yéegoon na bi benn waxtu ci guddi gi euh, tegalee juróomi simili dana yéegaat ci bëccëg gi bu benn waxtu tegalee fanweeri simili ak juróom. géej gi nag euh, feroon na sànq bi euh, juróom-ñaari waxtu tegalee juróomi simili dina feraat si guddi gi bu juróom-ñetti waxtu jotee waxtu yi gën ngir dem nappee ngi toll diggante juróom benni waxtu bu tegal ñeen fukki simili jàpp juróom waxtu bu tegal ñeen fukki simili jamono ji ñu nga ca ba ca topp dana tàmbali bu juróom-ñaari waxtu si guddi gi tegalee ñaar fukki simili ak juróom jàpp juróom-ñetti waxtu bu tegal euh, ñaar fukki simili ak juróom-ñaar jant bi nag fenk na bi juróom waxtu tegalee ñeent fukki simili ak juróom-benn euh, dana soow bu juróom-ñaari waxtu tegalee ñaar fukki simili ak juróom-benn Pape Cheikh mooy xibaaru jaww ji. merci beaucoup Zeyna euh, tàngaay bi dugg si na ah? bu baax baax ah ouais il fait très il fait, il fait mais bon. Ouais, pour le moment euh... ça va à des températures qui iront jusqu'à 45 degrés. voilà ay température yu yéeg ba 45 degrés merci ñu gërëm bu baax waa service national euh, météo ci xibaar yooyu la nga xam ne ñoo ngi ñu koy baaxee euh, ci seen jàppandal fajar gu jot ngeen mën a xam lu ñu jaww ji euh, di jagleel ci BC on te retrouve dans quelques minutes ce pour horoscope bi en attendant ñu àndaat ak Chérif Dia man mooy sama Sada Kane mooy sama David Pujadas mooy sama PPDA mooy sama Mamadou Ibra Kane voilà <laughs> noonu la xam nga il faut nga ñëgal leen journaliste yi pour ñu mën a ñëw fajar ci euh, émission bi Chérif euh, l'observateur la ñu koy euh, njëkkee ci sa ndimbal tey ji kaay bi xëy na ak ki nga xam ne ni moo di Yékini ni question autour d'un retour Yékini un champion en embuscade waaw ni kon dafa mel ni bàyyiwul dara am na ubbeeku na daal ci yéenekaay bi di l'observateur delsi na ci combat ba doxoon ci digganteem ak ki nga xamante ni moom mooy Balla Gaye nee na moom ci loolu la xamee ni kenn daal mënoo bëre di bëre rek doo mës a daanu nee na également moom ci boppam jàpp na ni moom mooy ki gën a xarañ ci làmb ji moom daal yëkk nii nee na di wax na également ci combat bi nar a dox ci digganteem ak Lac de Guiers numéro 2. et puis populaire xëy na tey ak kii di euh, Barthélémy Dias ak ñi mu seqal coow loolee euh, chantier du ministre euh, du ministère du renouveau urbain dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur ñoo ngi liir ci xëtu yéenekaay bi di populaire Barth fait arrêter les travaux de Diène Farba. moom Barthélémy Dias daal di dakkal lekk liggéey bi ministre bi ñu dénk wàllu renouveau urbain di Diène Farba Sarr doon amal foofu ci commune am di Mermoz Sacré-Cœur moom daal jàpp na nii euh, jëwlin ji dafa sàmmoonte wut ak lin xaatimoon ba tax moom mu daal di jël boobu dogal. ñu demaat euh, ci beneen euh, yéenekaay laas xëy na tey ak blocus bi ñu tuddee transgambienne relation ak Yaya Jammeh le porte-parole du MFDC déballe. waaw ki yor kàddu ko MFDC moom daal daanaka bàyyiwul dara ci li nga xamante ni moom moo dox ci diggante Sénégal ak Gambie rawatina blocus bi moom daade jàpp na ni ñi nga xamante ni ay président lan ñu jàpp leen moom it daan jël ay valise ak yu nu mel wax na ci loolu. ak tamit jàmm ja ca Casamance moom waa ji daal daanaka bàyyiwul dara ci li nga xamante ni moom mooy crise boobu ak jafe-jafe bi dox ci diggante ñaari réew yooyu. coowal suuf tax na ba xale yi wakaam di lëmbee di manifester boobu ba tey quotidien xëy na ak mbir moom lee mu tuddee ko euh, bradage foncier foncier de euh, l'aéroport 4407 euh, le titre foncier de la révolte. titre foncier boobu daal daanaka moom moo indi fipp gi nga xamante ni gone ay wakaam fipp nañ ko. ñoom ñi ngi bloqué rek lotissement yooyu jàpp ni ñoom seen moomeel la te tamit ñu ko joxee yenn ci kilifa yi neexu leen ba tax ñu daal di yëngu-yëngal ñaari fan yëpp ci wakaam direct info xëy na tey ak euh, président Macky Sall traque contre les canulars de mandat Macky ira-t-il jusqu'au bout loolu la direct info di laajte tey. dafa samp laaj ndax président Macky Sall dina dem ba jeex ci mbir moomu ñi nga xamante ni daal danoo dajale ay mandat yu bari rawatina ay mandat député boole ci wala maire wala tamit boole ko ci président conseil départemental ndax mbiram Aïda Mbodj bi njël benn kilo rek ndax président bi dina ci dem ba jeex loolu le direct info daal di laaj. réew mi xëy na itam ak loolee ñu tuddee cumul de mandat makki vire des élus de son parti loolu la ñuy lire ci xëtu yéenekaay bi tey. Macky Sall dàq na ay élus yu bokk ci biir APR di partem ndax rek bu day bañ ñu ne yaa ma neex la def. te tamit euh, bëgg a tëddeen jaaxaanaay moo tax yéenekaay bi nekkoon Macky Sall am na ci ñoo xamante ne doon jàpp ni dañoo cumuler ay mandat bokk ci parti mu daal leen di dàq. ñu euh, dem ci yéenekaay bi di témoin xëy na tey ak euh, mbir mi di Air Afrique lu toll ci fukki at ak ñeent ginnaaw crash bu amoon 262 ex agents dans la précarité di ay nit yu daan liggéey ci compagnie africaine boobu leen. ñaar ak juróom-benn fukk ak ay ñaar ci ay ex agents yi nga xamante ñu ko doon liggéey ca Air Afrique. ñoom bokk na ci ñi nga xamante ni daal boobu ba léegi ñi ngi xaara binnaaw bi liquidé boobee kër di compagnie ñoom nag xëy na yéen bi génn woon ko wante leen waxtu mën nañ ci ay président ci Afrique rawatina Abdoulaye Wade ak Laurent Gbagbo euh, moom yéen bi ci loolu la wax. dëgg bi ci euh, tànk nguur gi moom la yéen kaay bi di enquête tuddee euh, l'épine dans le pied de l'État Cheikh waxtaan ak ki nga xamee ni moo di Mamadou Lamine Kanté tel quel. tel quel maanaam rek melokaan la daal di kii di Mamadou Lamine Diante nag jiite. SAEMSUCUSEMT wante tamit benn ci grand cadre yi moom bàyyiwul dara ci wàllu njàng meeg njàngale mi ñu ngi waajal feetu premier mai ba tax yéenekaay bi daal di jox kàddu syndicaliste bi moom daal jàpp na ni jafe-jafe yi nga xamante ni moo nekk ci njàng mi gouvernement bi war na cee indi ay saafara. lu jëm ci lii di yéenekaay bi di regard des suppléances de maître Ousmane Ngom loolee ma nga xewee ci assemblée nationale regard xëy na ci tey ak kii di Aliou Sow yéenekaay bi dañu xamal ni Aliou Sow intègre le maquis. moom loolu la jàpp Alioune Sow fekk na nguur ak Macky ndax jàpp na ni moom may yéenekaay bii coow lii dox ci diggante Alioune Sow ak waa PDS ndax moom moo war a wuutu kii di Ousmane Ngomam déet Alioune Sow moom nee na kenn mënu ko tere bu loola jotee mu daal di ci jël dogalam waa PDS nag nee na duñ ko dégg moom Mamadou Lamine Keita leen bëgg jox boobee ndomba tànk ba tax yéenekaay bi moom dogalu Alioune Sow boobu dafa jàpp ni rek da ko jël ngir fekki président Macky Sall. dafa zoom ci li ñu tuddee Haut Conseil des collectivités territoriales. loolu la xëyee tey. waaw au conseil des collectivités territoriales bi nga xamante ni léegi tey ñu daal di koy samp ñoom nag daal di rek ñëw ci bu baax daal di jox Ndane Diouf mi nga xamante ni. moom joxe na ci xalaatam ne dañ ko war a jox ñi nga xamante ni dañoo am expérience ci wàllu politique ngir ñu mën a jariñ askan wi. ñu jeexal ak évidence euh, mi ñu xamal ni euh, président Macky Sall euh, jeexal na dossier wu Suneor il se félicite des résultats obtenus loolu la ñu liir ci xëtu yéenekaay bi. waaw njiitu réew mi rafetlu na kon rek li nga xamante ni moom mooy wàllu Suneor ak jafe-jafe ca amoon kontaan trop ci résultats yi na mujjee. voilà loolu yéen kaay yi la i xët ca kanam ñu xóotal ko ci revue de presse ak Mamadou Mouhamed Ndiaye boori 9 h ñu ngi lay gërëm bu baax euh, Chérif Dia bàyyi la nga noppalu tuuti 7h34 mooy doog jot fii léegi ay minutes 8h bu jotee nga dellusiwaat ci euh, plateau bi jox ñu ay xibaar ci wolof ñu euh, dem fi nga xam ne nii mooy rédaction centrale bu l'Observateur pour vous proposer la présentation du menu du quotidien l'Observateur ce matin nous retrouvons euh, au niveau de la rédaction centrale de ce quotidien Abdoulaye Bonjour Abdoulaye. Bonjour Pape Cheikh Diallo, bonjour à toute l'équipe de Yeewu Leen. Comme d'habitude, c'est tout à l'heure que je vous retrouve pour la présentation du menu de l'Observateur du jour qui apporte un élément de réponse sur le retour d'un champion en embuscade. Nous parlons évidemment de Yahya Diop Yékini, un roi déchu à la reconquête de son royaume après avoir régné sans partage pendant plus d'une décennie sur l'arène sénégalaise de la lutte avec frappe. Yahya Diop Yékini a vu le ciel s'écrouler sur une carrière qu'il a soigneusement pris le temps de construire. Et pour un géant qui trébute, se relever devient un exercice encore plus difficile que celui d'imposer toute sa puissance. À Yekini, cela aura pris 4 ans. La thérapie du temps a-t-elle porté ses fruits Élément de réponse à lire dans l'édition du jour de l'Observateur. Également à lire à la une de l'Observateur du jour, ce divise le camp présidentiel. Après le jugement de Karim Wad qui a fait grand bruit, la reprise des activités de la Cour de répression de l'enrichissement illicite se fait toujours attendre, alors que certains leaders de Beno Bok Yakar exigent une accélération de la cadence. D'autres responsables de la suggèrent de mettre la pédale douce, une divergence de points de vue au sein du, du pouvoir passé à la loupe par Le lynchage euh, d'un photographe à Kermassar figure également en bonne place à la une de l'Observateur du jour. Après le mari Khadifal, trois autres individus arrêtés par la gendarmerie. Ils sont trois individus soupçonnés d'avoir participé au lynchage à mort du photographe Moussa après sa tentative de viol avorté sur sa colocataire Khadifal. Ils ont tous été arrêtés et placés en garde à vue par les gendarmes de Kermassar. Fait divers pour terminer, nous nous rendons à de cette surprenante euh, affaire de mœurs. Il surprend notamment un vieil homme son épouse. Autant dire que le quartier commune de Kédougou en est tout retourné. Il de mœurs qui met en cause le vieux Alaourou Le septuagénaire a été notamment surpris tout nu dans la chambre conjugale de l'époux du sieur Mamadou Diallo. Armé d'une hache, l'intrus menaçait de violer la dame en état de grossesse avancée, tétanisée. Celle-ci a fini par avorter. Voilà, Papier, c'était tout pour la présentation du menu de l'Observateur du jour. À toute l'équipe de Yawulen, merci. Merci également à vous et merci à mon caméraman du jour, Younous Diata. Mais merci beaucoup Abdoulaye. Nous remercions toute la rédaction de l'Observateur. On vous retrouve certainement demain euh, toujours pour ngeen présenter ñu mu niwu l'Observateur. L'Observateur ngoog nag euh, premier quotidien fi ci Sénégal loolu mooy wax ju yàqu bu ngeen ko teelu tëjënd du ngeen ko am euh, tey ji nag gis ngeen li yéenekaay bi xëyee lépp lu leen soxal moo ngi ci biir entre autres Yékini ak yeneen i mbir yoo xamee ni dégg ngeen ko comme ni ko Abdoulaye Diédhiou Nafaré 7h37 mooy doog jot ñu jàll ci horoscope bi comme tous les matins dañ ci àndandoo ak Zeyna On démarre avec les béliers. On démarre avec les béliers Pape Cheikh tey di di jeudi 28 avril 2016 bélier ñi ngi leen di wax ne euh, ñom tey su fekkee ne jox nañ seen bopp les moyens de réussir dinañ mën a euh, jot bu yi nga xamante ne moom la fixé wu woon plus aisément euh, seen train de vie nag dinañ mën a gis ne su boobaa dina améliorer wu au fil des jours nañu wóolu seen bopp et surtout nañu wóolu la vie. soo yi ñoom journée bu tay bi mën na nekk journée bu positive su fekkee ne génn nañ des sentiers battus wala tout simplement ñu génn seen kër quotidien bi mën na nekk une aventure il suffit juste d'y croire Gémeaux yi ñoom tey jii ñi ngi préférer isoler wu pour mieux rebondir ensuite waaye su fekkee ne dañuy continuer à penser sans arrêt à l'argent doolu dina leen euh, taxa taxaw benn place def du surplace seen dara dootul avancer kon nañ ci bàyyi xel cancer yi ñoom moom euh, seen i ay mbébét dafa mel ni mi ngi am ndànk-ndànk waaye ñu ngi inquiété wu ci seen euh, avis wu conjoint ci lim leen nar a wax euh, mun nañ ko déglu naka tenir compte ci avis waaye nañu rester intègre sur l'essentiel ñëw si lion yi nga xamante ne ñoom instant bi ñi ngi jël seen atu yëpp dugal ko ci seeni ay objectif ci li ñu bëgg looloo tax nag ñi ngi liggéey liggéey bu méttee métti pour jot loolu lépp waaye nañu def attention à leur santé vierge yi ñoom su fekkee ne artiste lañu tey jii journée la boo xamante ne journée bu propice à la création et au spectacle lay doon su fekkee ne nag euh, dañoo am doom nañ leen euh, yóbbu dans des lieux dépaysants lu ci mel ni parc d'attraction euh, wala zoo loolu dina leen permettre ñu gën a mën a raffermir lien li ñu am ak seeni ay doom te loolu dina nekk loo xamante ne dina neex xale yooyu balance yi ñu ngi leen koy wax démb waxaat nañ leen ko tey euh, atmosphère bi am seen kër atmosphère bu tendu lool la waaye nag les sujets qui fâchent il serait euh, préférable ko ñu aborder ko même bu fekkee ne nag c'est juste pour éviter les malentendus ñu jéem a affronter situation yooyu Scorpion yi ñoom seen partenaire seen i ay collaborateurs ñi ngi leen di sollicité bu baax a baax tey jii euh, déplacement yi ñu nar a effectué nag euh, dina bëree dinañ passé ay coup de fil yónnee ay mail tey jii daal du ñu am benn jot pour ñoom waaye buñ ca jógee rek nañu xalaata noppalu en fin de journée. sagittaire yi ñoom ñu ngi euh, def un peu de souci am ay souci euh, ci pour seen porte-monnaie loolu nekk na lu leen di euh, attristé nekk na lu leen di mettre de mauvaise humeur waaye ñu ngi leen di wax ne bu ñu changer d'humeur pour si peu comme ni ñu koy waxee rek plaie d'argent n'est point mortel góomu xaalis moom reyul kenn Capricorne yi ñoom tey dinañ nekk un peu dans la lune euh, seeni ay xalaat yëpp nag dañ ko jëmale ci ki nga xamante ne euh, moom la ñu bëgg loolu mun nañ ko comprendre waaye tey ji suñu moytuwul itam euh, partenaire boobu dina leen def benn déclaration wala benn cadeau en vue verso yi ñoom tey ñi ngi am envie isolé wu toog seen kër euh, noppalu euh, ndax soxla nañu dallu bu baax a baax su fekkee ne nag seen liggéey empêché na leen ko nañu xalaat rek euh, jël benn 10 minutes de temps en temps ci biir journée bi daal di ci mën a relaxé wu. pare ak poisson yi ñoom nee nañ leen tey jii bu ñu xalaata euh, bu ñu ragal wax seen i ay idée euh, ndax rencontre yi ak contact yi nga xamante ne am nañ ko actuellement ay euh, rencontre ak contact yu favorable la seen i ay projet ñi ngi avancé ñoom bu baax a baax mun nañ ko gën a yokk nag il suffit juste que ñu waxtaan si ak seen i ay jegeñaale Pape Cheikh lii mooy horoscope tey yem jeudi avril 2016. merci Zeyna ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média horoscope baa ngi ngeen ko amaat ci page Facebook. bu yeewu leen ça vous mm. permettra ngeen xam euh, seen ay signe nu ñu xëyeeg yéen tey ji 7h41 Euh, huit heures moins dix-neuf on est tous là ce matin pour vous réveiller yeewu leen première matinale du Sénégal la seule matinale qui vous réveille et qui vous éveille ñun rek ñuy xëy boole ñaar yi bégale ak euh, yiy jëriñ on a préparé comme tous les matins beaucoup de choses pour vous dinañu foo ak yéen mais en même temps dinañ leen wax ay mbir yoo xam ne ni euh, daf leen di jëriñ en attendant ñu jox leen waxtu julli laataa ñu jàll ci taux de change bi ngeen mën cee bàyyi xel waxtu julli fi mu toll tembe julli suba teel mu ngi toll ci 5 heures 35 maanaam fajar jullee mu ngi toll ci 13h08 euh, takkusaan mu ngi toll ci 16 euh, h quinze euh, timis mu ngi toll ci 19h31 gée mu ngi toll ci 20h37 waxtu euh, mees yi ci jàngu yi cathédrale ba martyr de l'Ouganda bu dee cathédrale am na mees ci fajar gi bi 7 jotee euh, dina amaat mees tey ci ngoon gi bu 18h30 jotee martyr de l'Ouganda euh, am na mees ci fajar gi bi 6h30 jotee dina amaat mees tey ci ngoon gi bu 18h30 jotee église bu Saint-Joseph dina am benn mees tey ci ngoon gi bu 18h30 jotee. ñu jàll ci euh, taux de chance bi pour ñu bëgg xaalis lool ba mel ni Mado nga xam ni euh, dañuy bëgg di xam boo dee wecc ñoom dollar ak ñoom euro euro ba ci livre euh, Grande-Bretagne bi dañuy bëgg a xam montant bi exactement ndax dañ ciy xuloog sax ñiy wecci xaalis.

Ouais, c'était Wycliffe Jean et l'autre fille. Non, non, c'est pas Mary J. Ah. Blige. Euh, euh, Mais léegi pourquoi nga bëgg leen weddi effectivement c'est Wycliffe Jean et Mary J. Blige. C'est Mary eh, ah, euh, dinaa la yaa gën a yaram di ko ci tele bi gëmuloo ma ay magum jëm mu wax la nga leen di di Alfi gàtt gàtt loo gàtt dégg dégg dégg nga tur Alfi ba. loo gàtt dégg dégg dégg nga journaliste bu mag bu ñu naan Mamadou Ndiaye bu ñu la waxee gëmal mais ils te disent voilà non non non c'est pas vrai euh, je pense que mu ngi amoon ay rouge à lèvres bu noir évidemment que c'est Wyclef Jean moi je disais souvent qu'il s'appelle Wyclef Jean mm, il a même chanté avec Youssou Ndour ah, ben oui rappelle-toi sama mbokk bi la woy guinéen bi ah, ah mais eh, mais c'est qui qui t'a sonné mon on t'a pas encore demandé il avait chanté un de mes cousins ah. qu'on avait a longtemps mais on t'a pas encore demandé Alfie. ah tudd leen Zeyna pour le moment je suis avec Zeyna. <laughs> loo gàtt dégg dégg dégg dégg dégg dégg nga di première partie yeewu leen man ak man ak Zeyna dong la yoonu kenn nekku ci seen yoon nekku ci mais laissez-moi laissez-moi avec avec mon amour quand même c'est quoi ces problèmes. mais voilà oui je disais maa ngi tolloon ci 911 bi fan la ñu def 911 sax voilà euh, livre livre sterling moo toll ci 843 euh, virgule 911 843 virgule 911 francs CFA donc j'ai ouvert une parenthèse euh, sur Wyclef Jean ak Mary J Blige où est-ce qu'ils où est-ce qu'ils sont ñoom qu'est-ce qu'ils deviennent fay c'est vrai que xaw nañu fay c'est des superstars ñu ngi investir. waaw peut-être dans dans autre chose mais côté musique moom. déggatuñ leen. nee na ñu ngi investir loo xam ci seen. investissement ñu ngi investir ñooñu dama leen yàgg kii rek leen yàgg. enjoy de ay ci et tout. ok ok bonjour Alfie. bonjour Pape Cheikh. ça va <laughs> ça va bien est-ce que tu te rappelles de White Cliff Jean. oui Pape ah, ah. d'accord qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qui quest <laughs> ah ñoom ñu ngi ci action sociale yi. ñu ngi action sociale d'accord investissement comme lan nga ko déggal moom White Cliff. non ñoom dañuy kii dañuy innover dugg ci yeneen gamme. da nga xam ndax dafa à part musique bi ñoom ñi ngi ci yeneen di di créer ay euh, ay marques di di jaay ba ah dafa créer marque waaye. waaw dañuy on va vérifier tout à l'heure pour savoir est-ce que li Alfi di wax dëgg la parce que ma ko te gàtt ma dégg-dégg. bonjour Mamadou Ndiaye bonjour. Euh, waaye Cliff Jean tu disais euh, il fait de la politique actuellement. oui bon dernière présidentielle kii. candidat candidat. Euh, depuis lors lañ gëj am. ci ay nouvelles am mais je mm-hmm. pense que mi ngi ci côté boobu ah, investir surtout en en Haïti. ok ok euh, ak li fa jotoon xew tremblement. c'est vrai que moom c'est l'un des rares artistes euh, yu yu yu yu siiw ay. côté Haïti Haïti ah. voilà. surtout changer image bi un peu après la musique mu ñëw dugg ci côté politique bi. Ah, pour changer c'est un peu inédit. mais voilà donc mu ngoog euh, livre sterling bi donc moo toll ci 883 843 virgule 911 euh, yuan chinois bi di euh, toll ci 89 virgule 6746 taux de change bi la woon merci ci li ngeen commentaire ci ñooñu man je seen la wóoruwul bonjour Mado bienvenue on te retrouve tout pour trucs yeeg ñi tey ñoom a jëlanteel comme tous les de conseils concernant naka la ñuy jëlee seen euh, toppatoo seen bopp effectivement Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu mbokku téléspectateurs yi c'est vrai que tey ci jigéen yi laay nekkaat mais euh, on va rencontrer deux jeunes filles yoo xamante ne euh, l'une évolue dans le stylisme l'autre évolue dans le make-up ñu def nag benn duo mu joxe nag benn kii boo xamante ne c'est nice elles vont faire des démonstrations sur le plateau donc mais je promets par contre góor yi ñoom itam il faut que ma def ay effort pour wutal leen des et astuces parce que taseeg naa ay euh, booy njaaye ku ci nekk di kaas mais je promets que je vais faire plus d'investigation pour faire plaisir aux hommes car chacun doit prendre soin de soi. super merci ce sera pour euh, euh, tout à l'heure ñu ngi la ciy gërëm bu baax euh, Alfie euh, di nga ñu toggal beignet de crevettes aux pommes de terre ce sera pour ca kanama a kanam. waaw ca rek mën naa préparer quand même yi nga xam ne ñoo ciy dem notamment nga xamante ci rubrique cuisine bi Pape Cheikh ak sama four micro-ondes Samsung bi nga xamante ni moom laa ko fas yéene toggee donc ci kanam rek ak euh, Sofia yi ñu defar les des beignets de crevettes mais à base de pommes de terre ça n'a rien à voir ak beignets de crevettes yi ñuy tàmbaleek voilà dañu ànd itam ak euh, Kia on parlera euh, emploi euh, tey dem na seeti ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci wàllu joxe permis et tout ce qui s'ensuit on dit soxla bu teew ay nelaw faju ko en plus tey mooy bis bi nga xamante ni moom la ñu jagleel yenn ci ay jafe-jafe yu nit mën a am ci bërëbu liggéeyukaay soit nga feebar wala nga def mm. accident ñi ci dee ak ñi ci nekk ay blessé mais en même temps Kia on moom mooy mis emploi ci yeewu leen bi y a tellement de gens qui meurent ou qui t malades cause de seen liggéey et fii ñun Sénégal du ñu bàyyi xel ci yenn détails yooyu noonu ñi dee ndax seen liggéey wala ñi feebar ndax liggéey waaw ñi feebar mais ñi beneen affaire bi mooy li ci gën a am solo mooy tamit mooy stress ñi nga xamante ni stress da leen sonal ci seen liggéey. Mm, mm, te loolu dafa am mm. solo te xam nga stress dalee ci seen liggéey moom ah, dañ lay woo jox conseil nga dem xooli psychologue. moom boo xamante mais ñun amuñu habitude euh, bu ñuy liggéey à chaque fois di dem ci seeti benn psychologue. au moins mu ñuy mu ñuy mu ñuy jéem a orienté un peu suñu euh, professionnel. voilà je pense que c'est très important ñun duñu bàyyi xel parce que euh, xam nga sama classe gi ñun feebar te liggéey indi ko souvent on se rend pas compte euh, quand dans des pays développés ils ont des psychologues d'entreprise euh, on leur donne maintenant la possibilité dans certains pays même de faire des siestes euh, ci biir entreprise bi tellement ñoom ci dëkk yu mag yi fexe nañu ba xam ni nit ki li koy gàllankoor te stress di ko indi ndax liggéey bu bëri dafa bëri mhm. et ñun fii Sénégal on n'est pas très on n'est pas très boobu noonu quoi on n'a pas cette culture xam nga xam nga njëriñam. Mhm. déjà stress yi nga xamante ne dañ koy dund ci cadre liggéey bi ak pression bi nga xamante ne danga koy subir. Mhm. c'est pas euh, forcément que nit yëpp am koo xamante ne mën nañu waxtaan ak moom. Mhm. mu mën leen giifal. alors loolu mooy euh, rôle psychologue et je pense qu'il est temps quand même que euh, Afrique et Sénégal aussi ñuy xalaata a ay psychologue si si biir entreprise yi. comme ça je pense même que suñ ko defee sax chiffre d'affaires entreprise yi dina yokk ndaxte nit ñi fay liggéey seen xel dina gën mën a dal. def seen liggéey na mu bu ñu la joxee attente euh, ci année bi les plus élevées sur la su la performances. Mhm. par exemple ñu ne la Pape Cheikh d'ici mhm. trois mois. Mhm. niveau Yeewu Leen mën nga ko yéegal ba mu nekk concurrencé ko ak benn euh, télévision française wala benn. kon léegi objectif bi. bon moom mi nga xam ne mooy acteur bi. Mhm. objectif bi dafa war a mën a nekk d'ici deux mois mu atteindre sama objectif. Mhm. mais bu comment faire le moment boobu noonu. Mhm. mën na ko gën a. waaw c'est ko stressé boo xamante ni bataille psychologique bi fii la gën a méttee. peut-être euh, peut-être euh, euh, bërëbu liggéeyukaay boo dem am na xeex ba ci dëkk yu mag yi. ñoom la ñuy jël exemple. waaye ñun bi yokku ci suñu jafe-jafe mooy maraboutage ñun dañ lay dañ lay stressé. effectivement seen yoon nekkul sax ci seen liggéey dañ lay stressé donc soit tu où nga war di dem seeti euh, psychologue on en parle de toute façon tout à l'heure ak Mamadou Ndiaye et puis euh, ci teewaayu bi nga xam ni soxal na euh, képp koo xamante ni da ngay liggéey Mamadou El Hadj El Hadj Amadou May Garmi mm-hmm. moom itam alxames yi moom moo ñuy magal kookoy borom grande nuit na biir il sera avec nous ci plateau bi pour ñu waxtaanee fàttaliku xam nga ñaare fajar gi dañuy fàttaliku figure emblématique lay wax yu Sénégal démb rek maa ngi dégg waaye tur bi lay fàtte waaye moom dama ko dégg RFM euh, waay waay ku baax ki waay waay waay waay waay waay waay waay cay xel o oh, te moom benn école rek IAM moom waay waa ji Girassi Girassi Maba Girassi xaw ma daal Mamadou Girassi mu baax mi hier je l'ai écouté euh, ci journalu RFM il disait euh, dañoo war a bàyyi léegi célébration yi tey passé ci te jàll ci acte yi mhm. il peut pas comprendre fii Sénégal toll mhm. jàngaluñu entre jàngalewuñu entrepreneuriat mouride ci école yi ndax bokk ci programme ah lu tax ñu dem ba Euh, chaque année ñuy célébrer Cheikh Anta Diop. te Cheikh Anta Diop bokkul ci programme bu école yi. on a tellement d'exemples yoo xamante ni mën nañu ko am ay nit wala ay situation yu tax euh, Sénégal mën a avancer te boolewuñ leen ci programme scolaire yi. alors hier j'étais tellement ébloui à l'entendre parler à la radio et je pense que loolu moo nekk suñu débat ñun tout le temps dañu boole yenn yi nga xamante ni amal na njëriñ Sénégal ci programme scolaire ñun ñun ay ñun ko déggee. Ah, même chose même même bàyyi lu ma déggul nga déglu <laughs> même réaction lu ma déggul nga déglu yow topp nga ma de. <laughs> waaye yow lii baa jàmm la du ma la bàyyi. baa jàmm la. <laughs> mère baa mu ne waaye lii jàmm la. yooyu li ma jëmbalee. loolu. maire bu neex maire Mara France. wéyu li ma jëmbalee. ma ne ko jàmm la kay fekk ma taxaw nit ñi wër ma Pape Cheikh Pape Cheikh ma jëmbalee. waaye yow jàmm la toppee lu ma déglu nga déglu ko mais franchement. il il yoo xamante ni euh, je sais pas euh, ki jiite réew mi président ki Sall fan la nekkoon. Mm. mais bu ko déglu woon dina xam ni euh, monsieur Guirassi li mu wax am na solo. mais surtout Pape Cheikh mooy exemple bi mu joxe ci ci joxe. entrepreneuriat au Mouridi. ah oui exemple bi ñu ci joxe dafa ah. dafa am solo. ah oui bu ñu demee ba yenn eh, télévision yi jékki nekk fay ñu ñëw di topp ay Mouride depuis États-Unis depuis France. leen ah enquêté ah ñëwaat ba fii bëgg xam chercher lan moo nekk ennemi derrière tout mm. ça. Mm. seen ni ñuy dajalee seen xaalis bi. Mm-hmm. vraiment ñun noonu war nañu mën a fexe mu trouver solution. di ko jàngale ci école yi ko jàngale ci am na ay spécialistes gars yi ci Mouride y a des Mourides ñi nga xam ne ils sont à l'extérieur. et eh, je te jure je te bon exemple euh, moi je rencontre Euh, sama xarit ci mu tuddee euh, bawal bawal yenn saa yi nga tase ci koo xamante ni néew ma la doctorat sax affaire économique série G de mm-hmm. ay entrée en sax amuñu ko mais dañoo mën a entreprendre mm-hmm. dañoo mun a liggéey dañoo mun a jaay ah dañoo mën a commerce dañoo mën a marketing mm-hmm. et pourtant jànge ko ci école donc ñoom ils l'ont appris ci ñun li tuddee entrepreneuriat bawal bawal wala entrepreneuriat euh, bu mouridisme et je pense que c'est très important loolu moom vraiment war nañ alerte war na mën a alerter yenn mën a surtout suñu ñi nga xamante ne ñooy jiite njàng mi mhm. ñu xool na lañ mën a def programme yooyu ñu ko insérer wala ñu xool nu ñu mën a toogee rek waxtaanee ko nan lañu mën a def ba programme yooyu ci ay te ñu feexal suñuy xool tuuti déglu benn way boo xamee ni Youssou ko defoon Gorée Pape Samba Thiam boo ko amee ci kan ci ginnaaw nga tegal ñu ko ñu bégee suñu mbokk yi Youssou Ndour nag mu ngi préparé génn album démb rek on en a parlé mhm. euh, nii yéen di ngeen bokk ci ñi njëkk a dégg euh, album boobu nga xam ne moom la Youssou Ndour fas yéene génne fii ci Sénégal en attendant on se rappelle euh, de ce billet retour bi mu defoon île de Gorée euh, njëkkee woon ko États-Unis pour xool ñi nga xam ni suñuy maami esclave meññ nañ leen fa ba ñu màgg tey ba doon dara Youssou yëkkatiwaat leen indiwaatoon leen Gorée ci jamono bi Joseph Ndiaye mu ngi doon dund on se rappelle de ce magnifique documentaire qu'on avait réalisé sur le billet retour offrons moom lañ leen di yeewee ñu ngi leen di ñaanal jeudi bu neex ci télévision Futur Média yeewu leen première matinale du Sénégal. su ma leen mënoon jox loxo yéen def naa ko ah su ma leen mënoon a seet yéen ñëpp yegg si naa fàttewuma leen mënul am yëgoon leen sa ndaw mooy lii wër fu ma tëggee ngeen ñëw wii ma su ma génnee lu bés ngeen dënd ko mënuma leen man de gërëm naa leen ba na maa ngi bind way rappelle du jazz un mélange de voilà fusion la def quoi entre ay woy yoo xamante ni defoon na ko ci slow bu sénégalais Euh, boole ko ak jazz sa nous rappelle beaucoup de souvenirs Zeyna nous a raconté ay anecdotes ci bi ñu koy doog a seetaan euh, c'est quoi l'histoire wala doo ko nettali ci kanamu nit ñi. Ah, nettali. la ko nettali moo ko def. non nettali wu ma ko def maa ko fekkee. yow kay yaa googu rek waaw yaa <laughs> googu rek. bon di ko nettali après. d'accord après journal bi ah, parce qu'on n'a pas le temps am nañu jot bi ah. d'accord xanaa da ngaa teg papier peint bi def ko romb. waaw ñoo ma sponsorisé tey. Ah, ñoo ma sponsorisé madame ak sa bureau ba. en tout cas bu njëkk ba. waaw. nuru na de. nuru na de yaa ko teg jox ko ko xanaa peut yu mu dencoon la rek génneewaat. ah kon yooyu léegi da ngay solu chaque jour bee metti rek moo tax. <laughs> non je blague ta robe. <laughs> merci allez jot na euh, ñu bàyyiwaat leen ak euh, Chérif Dia mu journal bu noppee ñu àggali. jërëjëf Pape Cheikh mbokk yi ñu ngi leen nuyu rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru juróom-ñetti waxtu ñu tàmbali ko rek ak musiba ba am ca yëmbal benn baraak benn waaye nag bu am jafe ci wàllu xelam moom moo lab ca lac artificiel ba moom nag démb ba léegi sapeur pompier yi ñu ngi koy wër ay atam tolloon ci ñeent fukk di ci dellu si suñ xibaaru diggu bëccëg yi ak Salif Sow ak Asmalik Diop. wax ji jàmmaar li amoon ci ndaw yi wakaam yi ak alkaati yi démb ba léegi ñoom nag li leen métti rek mooy suuf seen jàpp ne. dafa am ay kilifa yu ko ak moo ñu tudd ci Macky yu fay lool nag ma nga am rek ci ancienne piste bu aéroport ba démb nag jot nañ faa jàpp ay ndaw gendarmerie ñoom ñoo mujj ñëw ngir dakkal boobee manifestation nga xamante ni comme ni ngeen ko gisee bare nañ tali yi daal di fay taal ay pneu ñu wax ci jafe-jafe yi nga xamante ni ndaw ñi yenn saay dañ koy am tout tànk yi liñ ci nemeeku bu mujj bi mooy ki nga xamante ni ab toxicomane la doon jëfandikoo ay sinébar xelam daal di dem ba tax mu daal di faat bébé bu am ñeenti weer daal di agressé yaayam ba tax nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo de benn kuréel bu ñuy wax euh, akap ñoom nag liñ jug rek mooy ñaaw lu lu ni mel jàpp ni xale yi dañ leen war a aar lool nag dinañ ci profité sax daal di saisir seen comité locaux yi nga xamante ni ñoom ñoo CONAF dinañ ko amal ngir dakkal lu ni mel ñu ànd ci ak Maymuna Njaay viol dóor wala sax yeneen xeetu métital yoo xam ni ñu ngi koy def jamono ji ci tuut tànk yi mbir mi tiital ñu bari yëg-yëg bu njëkk bi mooy am métit am naqar parce que kenn du gis doomu aadama ñu koy def yenn jëf yi te du la naqari bu fekkee nit nga nit nag mooy ku nitee aussi te bu ñu nekkee ci am réew ay xale nekk ci réew ñuy gis ñu jëf-jëf yoo xam ni daanu loon am ci réew mi war nañoo gëstu lu tax loolu. dëkkuwaay buy dox ay jikko yuy soppeeku lii nag laaj na gëstu bu yaa. te dafa laaj tey fii ci senegal ñu defaat ay recherche xool lan moo waral tey. nit ñi di def yenn jëf yi ndax nit ku rey nekkul ko normal ba demee bay rey rek rey boo xam ne reyu tayeef la ñoo fekk nit mu toog nga rey ko na war rawatina di ci tut tànk donc loolu mooy tekki ni euh, nit ñi am na lu nekk ci ñoom loo xam ne war nañ koo set war nañ koo càmbar waaye itam war nañ leen a faj itam. nguur gi woy jur yi association yi nga xam ni ñooy xeex ngir àq ak yelleefu tut tànk yi. ñu ne mbir mi ku ci nekk war nga ci bay sawaar xam nga réew su leerul mbedd yi leerul caay-caay yi jëfkat yu ñaaw yi dañ ciy profité te bu ñu xoolee lu mel ni Kër Massar nga xam ne yenn jëf yi dafay am dafa faral di répété wutam ñu koy gis nekk na loo xam war nañ ci taxaw beneen bi itam ci wàllu euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo yore kaaraange réew mi itam loolu war nañ ci taxaw parce que bu benn jëf amee ci benn gox benn yoon wartu faa delluwaat amaat fa war ñoo jël ay dispositions pour que nit ñi nekk en sécurité fa ñu dëkk. coalition bi nga xam ni moo ëmb association yi nga xam ni ñooy xeex ak ak yelleefu tuut tànk yi nee na du xaar dara ndax kat cas yi nga xam ni ñu ngi ko nemmeeku fan yi loolu lépp dina ko yeggee ca rapport bi nga xam ni moom la ñu nar a amal njeexitalu décembre laata loolu njiit la mi ngi xamal ni dina dem ci gox yeeg gox goxaan yi ñaax ña leen di wàllu politique Khalifa Sall nag mi ngi wane ak njàppalem soxna Aïda Mbodj min jëlee ci présidence conseil départemental bu Bambey moom maire Ndakaaru jàpp ne procédure bi teguwul ci yoon ndax kilifa yi lan waroon njëkk a def mooy mettre en demeure soxna soosu ñu déglu Khalifa Sall ci micro Aminata Mbaare Sow Mohamed Dieng. Aïda Mbodj li ko daal dañu évoqué dañu invoqué ou ñu évoqué loi wax nañ dëgg ñu ko évoqué loi bi bu 96 dafa tere cumul c'est-à-dire kenn warul am lu ëpp ñaari mandat soo amee lu ëpp ñaari mandat war nga wàññi benn bi loi bi jox aussi ay Mbodj mi nga xam ni mooy concerné bi préfet bi wala sous préfet bi yor dëkk ba ministre bi ak président de la ku nekk daf la jox cër ci su fekkee loolu amul nga xam noo ciy taxawe li nga xam ni moom lañu metitlu naqarlu ko ci li xew mooy dañu tëb étape bu am solo kenn mënul jël ay Aïda Mbodj destituer ko sans jox ko mise en demeure wax ko ni ko kat yow mii waroon nga bi nga bi ñu defee weer nga tànn ni war nga bàyyi benn mànda mu tànn suspendre ko teg ci suspendre ñu ko defuñu ko mise en demeure donc jalgati nañu yoon. Khalifa Sall moom mi ngi doon àdduna ak ginnaaw bi ñu doon amal lekk anniversaire wàllu esclavage ak traite négrière ca maire bu Ndakaaru démb la woon xew-xew yi. ñu jeexale xibaar yi ak beneen xew-xew bu war a am tey jii ca université waa institut des droits de l'homme et de la paix di EDHP ñoom ñoo ko nar a amal benn kolog la bu ni jagle rek université ak société lan na université war a taxawee ci bureau askan loolu nekk jëwriñ ji dénk wàll njàng mu moo ko a teewee ñu déglu leeral yi ak professeur Samba Thiam mi jiite boobee daara daje bi ñu nar a def euh, jeudi bii di ñëw suba ak vendredi di daje di fexe ba université euh, delluwaat ci boppam ñi nga xam ne ñoom ñoo fay jàngale ñi nga xam ne dañ leen fay jàngale ñi nga xam ne ñoom ay parents d'élèves lañu ay waajur di xaar ci seen doom ñu mën a jàng jàng bu kawe yàlla yëkkati seen xel ñu mën a am ci liggéey bu baax ñoom tamit indi seen seen waru li nga xam ne mën nañ ko def ci société bi euh, ñu waxtaan daal ñu waxtaan ci jàmm ñu waxtaan ci lu tax université taxaw ñu waxtaan ci nan la ñuy fexe ba université li muy tudd li muy woote méngoo ak li nga xam ne lii mooy jamono jamono léegi di dem di yëkkati di dem nit ñi di changé ay nouvelles technologie du benn euh, ñu fexe daal ba ñu weccoo xel euh, indi jàmm ci suñu réew. fexe ba li université lu tax moom moo ko tax a jóg mu mën ko fexe. jërëjëf mbokk yi lii moo fi tukkoon ci ay xibaar ñu leen di sant di leen gërëm ci rafetlu ànd bi ak télévision Futurs ma bàyyi leen ak Pape Cheikh Diallo mu wéyal seen émission yeewu leen ñu ñaanal leen ngeen yendu ci jàmm. gërëm ñeel na la Chérif Dia mu nekkoon jotaayu xibaaru suba gi bu njëkk bi euh, ci français sànq la jeex bi ci toftalu léegi lay doog a jeex ci wolof la woon ñu àndoon ceeg Chérif Dia ak rédaction bu télévision Futur Média ca kanam ci diggu bëccëg bi daañu àndaat ak ñoom i euh, euh, ñun ci jotaay bi li nga xam ni moo leen di yee noppi di leen jëriñ am leen itam habitude di yër suñu site internet bi bu ngeen bëggee tàggoo ak kumpa mën nanoo xool ni Euh, site internet u euh, GFM yeewoo tey gestion de l'eau euh, ak li nga xam ne ni mooy gan gi ñu invité bi ci invité rédaction bu télévision Futur Média ay détails yu am solo ci mbir moomulee mën ngeen ko fekk ci site internet bi lépp lu jëm itam ci wàllu politique culture ak société ak yenn ci ay replay yu suñuy émission mën ngeen ko fekkaat ci www.igfm.sn ñu fekki suñu correspondant yi ci gox yeeg gox-goxaan yi tey nag dañuy dem dëkk bu ñu naan ndar euh, ndar nag bu ñu fa demee dañu fay fekk euh, correspondant bu bees bi euh, teewal ñu fa di wuyoo turu Ousseynou Diop Ousseynou Diop ñu ngi lay ndokkale bienvenue ci équipe bu GFM correspondant nga foofu ca ndar ñu ngi lay nuyu ba jàmm nga fanaane Ousseynou Diop euh, la ñuy euh, jéem a euh, jokkool moom nag ci correspondant yi tey mooy guléet ñu koy dégg ah. ci yeewu leen bi Ousseynou ndokkale ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu ba jàmm nga fanaane ça va macha allah jàmm rek laa fanaane par Cheikh Diallo naka ndar alhamdulilah xam nga ni ndar moom temps yi dafa xawoon tàng waaye léegi nag dafa xawaat sedd wallaay sànq rek euh, Zeyna mu ngi koy wax ci météo bi ne daanaka ah. dëkk yëpp léegi foo ci dem euh, diggu bëccëg bi température yi mën naa yéeg ba quarante et quelques mais heureusement ba ndar euh, ku ne xam nañu dëkku ndox la guddi gi defe naa ak fajar gi quand même dina féex waaw dina féex lool sax ba fii ba ay booru onze heures day sedd guyi moo tax xam nga ni ak changement climat bi day bare ñoo xamante ni dañ ciy feebar ndaxte xam nga ni bu tàngee bu mujj mu sedd seddaat bi mujj mu tàng lu ci bare loole mooy indi ay jafe-jafe yoo xamante ni eh, ci wàllu wér-gu-yaram jamono ji dañ koy nemmeeku ci diwaan bi Pape Cheikh di wax naan kenn wératul bu loolu weesoo Ousseynou lu ñu mën a jàpp ci ay xibaar foofu ca jërëjëf Pape eh, xam nga liñ ci mën a jàpp bokk na ci lu jëm ci wàllug eh, hôpital régional bu Ndar ay jamono ngi ni le ay jafe-jafe yu mag lañuy dund ci xeex boo xamante ni syndicalistes yi ñoo ko song jëmale ko ci ki nga xamante mooy directeur bi muy daal mbir moo xamante ni naqari na askan wi xam ngeen sax ci xibaar yi weesu euh, ñi nga xamante ni ñooy euh, nappakat yi dañu bari woon pont Moustapha Malick liggéey baari itam pont bi nga xamante ni pont Mous Masseck Ndiaye la ñaari pont yi ñu bari ko wane seen naqar dem gouvernance dem hôpital génn ci mbedd mi takkay brassard rouge taal li nga xamante mooy ay pneu euh, loolu nag naqari syndicaliste yi moo tax démb ñoom dañu def grève totale tey jële itam ñu ne dañuy sitin euh, ca hôpital général bu Ndar fa la ñuy toog banque seeni loxo même bu fekkee ni dina am ñenn ñoo xamante ni daañu liggéey loolu sax moo tax seen secrétaire général di Mballo Dia Thiam moom ñëwoon ci diwaanu euh, Ndar Géej euh, fii nag ba mu fi ñëwee daal dafa mel na moom mbir mi daf ci xëpp kaani ndaxte nee na li ñu gis mooy que nii directeur bi dafa nekk ci ginnaaw ay nit di di manipuler muy nag ñoom xeex bi jamono jii nga xamante ni daal jëm nañ ko dañ ko nationaliser yóbbu ko ci biir réew mi yëpp gën a nag tàngal lu jëm ci wàllu xeex bi ndax ñoom li ñu jàpp mooy que ni gisuñu euh, benn intérêt boo xamante ni am na ay nappakat wala boog askan wi génn ci mbedd mi euh, di attaquer euh, li nga xamante ni mooy ay syndicalistes ñu ni kon ñoom ay jafe-jafe yu mag la ñu dund foofee tax na Euh, xeex bi ñu ni euh, jamono ji ñu jëm daañ ci gën a daal di taxawaat waaye timit ci réew mi yëpp bank seeni loxo ngir nag jëf jooju nga xamante ni def nañ ko yéen ci ay syndicaliste ñoom seeni bopp ñu wane seen seeni naqal euh, beneen xibaar bi dafa jëm ci wàllug li nga xamante ni mooy euh, def ko tu ñaawteef yi xam nga ni euh, diwaalu ndar temps yi moom vraiment dañuy dund dund boo xamante dund bu metti la euh, surtout nag jëm ci wàllu gi nga xamante ni dañuy attaqué yenn ci ay bërëb yi mm. boo fàttali ko dimanche bi ñu génn société de culture légumière ay band bandi dañu ko attaqué dem mm. foofu yóbbu fa xaalis mm-hmm. waaye tamit cambriolé magasin bu stockage bu njool moor sag ceeb ya fa nekkoon ak ay engrais njàkkul ay njaay la ñu sant yóbbu ko ronk itam lu ni mel lañ fa def muy mbir moo xamante ni mbir mu doy waar la mm. euh, ñu nemmeeku daal ni diwaan Ndar moom euh, jamono ji ñu génnoon ay euh, insécurité daf fi am waaye alhamdulilah gendarmerie dañu def benn opération dans quarante minutes la ñuy def benn point de presse ngir daal di jébbal xibaar yi nga xamante ni am nañ ko ci opération bi ñu doon def ci ay for nañ sax ci yow bay nii Euh, ñoom teg nañu loxo la major partie di ñi nga xamante ni euh, dañu doon def ñaawteef boobu moo tax tey jii nag ñu war leen jébbal euh, ñi nga xamante ni ñoo ñu war leen présenté ñi nga xamante ñooy journaliste yi wax mbir yi nan la demee opération bi ak ñu nu jàpp fan la ñu dëkk fan la ñu bàyyeekoo ñu fàttali nag ci fan yi la ñu génn rek jafe-jafe bu ne meel amoon na opération bi ñu defoon ñu bare lañ ci jàpp rawatina ci nag ay jigéen Pape Cheikh Diallo mm-hmm. ñaari xibaar yooyu daal mooy li gën a fës ci diwaanu Ndar gi merci Ousseynou ñu ngi lay gërëm bu baax yaa ñu teewal foofu ca Ndar ñu ngi lay wax rek dalal jàmm ndax bokk nga euh, désormais ci suñu équipe bu correspondant yu nekk euh, ci dëkk yëpp je que 14 euh, régions yu nekk Sénégal yëpp foo ci dem rek télévision Futur Média am na ko ko fa teewal ñuy ñaan dem ba région boo dem am fa TFM TFM Saint-Louis TFM Thiès TFM tout ça donc Ousseynou Diop mooy suñu correspondant permanent foofee ca Ndar exactement 8h13 mooy doog a jot on a beaucoup d'invités ce matin parlera de tout euh, lépp loo xam ne ni euh, soxal na leen mais comme tous les jeudis euh, nous parlons emploi ñu fekk si bi laata ñuy wax ci li nga ñu préparé sànq rek ñu ngi ciy junj ak Mamadou Mouhamed Mamadou Mouhamed Ndiaye waaye Modou Ndiaye la ñoom ñaar jëm Mouhamed la de Modou Ndiaye Papa Ndiaye Bale kii Mamadou Mouhamed Ndiaye la kii Modou Ndiaye Papa Ndiaye Bale voilà on a parlé un tout de cette journée bis bi tey yooyu tam man du ma wax lu du lu dul dëgg man samay caaxaan sax c'est vérifié <laughs> ah man sama ree sax dafa authentifié waaw ah, waaw isotherme. léegi yow lan la. ah lan la léegi. yow lu waay gàtt dégg-dégg rek dégg nga dégg nga Pape Cheikh Dia gàtt dégg-dégg rek dégg nga sama tur lu waay gàtt dégg-dégg waaw man samay ree sax dafa dafa authentifié c'est vérifié tu entre Google tu mets sourire de Pape Cheikh mu ne Fane waaye kon loo ma bëgg ah, li ma jëm la. <laughs> <laughs> <laughs> voilà donc on parlait de cette journée ñu jagleel ko ñi nga xam ne ni euh, ñoom ñoo euh, ñoom ñoo feebar ndax liggéey ah euh, wala blessé ndax liggéey alors comme on le voit à l'écran nit bu dee liggéey dafa am yu am solo yoo xamante ni dañ ci war a bàyyi xel mhm. employeur bi surtout muy santé kii lay liggéeyal sécurité au travail c'est deux choses qui sont tellement importantes mhm. et d'habitude en plus de nit yi wut liggéey di la di la contacter ñi am liggéey ba pare tu demande souvent aux pour ñu assurer santé bi ak sécurité journée bi par rapport ak journée bi surtout c'est c'est très important Pape Cheikh boo ko seetloo lu ci bëri ah, ci wàllum tabax mi la ñuy gën a en général ay accident euh, ci ci industrie yi ci la ñuy gën a noté lu ci bëri ay accident mais je pense que des journées comme ça dafay gën a tax ñu ñu jëlaat euh, yeneen décisions yi wala décisions yi nga xam ne jot nañ ko jël ñu jéem ko matal euh, et puis même côté côté santé surtout c'est c'est important parce que ni nga gis ñu ci bëri dinañ liggéey ci ay conditions yoo xamante ne bala di ak ay produits toxiques amuñu benn protection bala ñoo ñaanuma ko yàlla bala ñoo génn àddina am ay feebar yoo xamante ne ba pare duñ leen taxawu donc pour des journées comme ça je pense que c'est super important mm-hmm. euh, ñu gestuwaat euh, ñooñu et puis jéem a xool yan loi lañ mën a tëral mm-hmm. pour mën a accompagner entreprise yi nga xam ne dañuy yëngu ci ay ay yu yu un peu euh, yu dangereux ay domaines yu dangereux je dirais donc tey bis bi dañ ci bëgg gën a sensibiliser pour nit ñi gën a am kaaraange ak mm-hmm. wérug yaram donc moo tax ñu tuddee ko journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail on n'oublie jamais ces gens qui sont morts ci seen bërëbu liggéeyukaay. Mm-hmm. mais lan mooy lan mooy solo sa journée bi exactement. journée journée journée bi xam nga boo gisee waa bureau euh, bureau de travail mu ne mm-hmm. organisation internationale du travail ñoo ko ñoo ko tëral. teg ko mm-hmm. ngir rek di fàttali comme ni ko kii a waxee léegi di fàttali ñi nga xamante ni ñi ngi nekk ci que ça soit ñi ngi nekk ci entreprise yi. wala wala ñi ngi nga xam ñi ngi liggéey foo xamante ni dañ lay exposé. ci ñu wala ñoo ñi nga xamante ni moom ñi nekk ci entreprise à chaque fois dañ lay dégg ñu naan la stress. ñoom dañuy wax ni stress moo kii moo leen nii moo leen di gën di sonal mm-hmm. te xam nga ñun sànq ñu ngi ko doon wax ñu ñun li ñuy gën di sonal tamit mooy ñun amuñu culture bu ñu nekkee ci entreprise parfois stressé dem gis psychologue wala benn psychologue boo xam mu ngi nekk ci biir entreprise bi ñuy dem di mm-hmm. mm-hmm. ni mm-hmm. ay cas extrême yoo xamante gis nañ ko ci benn ci ay entreprise yoo xamante nit koo xamante ne dafa toog rek ñu ne dafa timide ñi naan kii amul problème fekk mu ngi mu benn oh. psychopathe boo xam ne mm-hmm. Mm-hmm. day xëy rek mara day taali di fa émission yoo xam ne ñu naan ñu naan ñu naan pourtant moom amul woon benn problème ndekete yow psychologiquement c'est pas une benn waaye li ma jëm la dafa am sa wax ji fu mu dem wax ji dafa xaw a doo daane de ah pourtant dafa dafa mel ni lu yëg doo daan de. mais ñoom stress bi dañ ko reconnaître ba am ay lekk yoo xamante ne sax dañ koy recommander pour stress. notamment le chocolat woowee woowee xam nga ñun euh, ñi am ay accident de travail souvent euh, mm-hmm. dañu koy seetlu ñu ñu gën a xool mooy euh, ñu liggéey ci gros œuvre yi ay liggéeyu maçon ak ay ñoom seet mais ñeneen ñi nga xam ne sama classe gi ñooy liggéey liggéey yi ñu jàpp ni entre guillemets mooy yu light yi mm-hmm. ñooñu tam seen accident de travail souvent stress mën na ko indi ah, accident de travail waaye tu bu bëri mm-hmm. sais moi souvent euh, quand je tombe malade sama ay feebar je dis souvent à, à mes à mes gens mhm. que man ay feebar yu bizarre lay am mais à chaque fois bu ma amee feebar bu bizarre et que je pars voir mon médecin mhm. euh, je rappelle que mon médecin n'est pas sénégalais effectivement euh, pour cette gouverne à chaque fois que je pars voir mon médecin français qui vit à Nantes à, à Beauville bien sûr à chaque fois même mon ophtalmo hein, il vit à Nantes ouais. alors quand je quand, quand je pars chez mon docteur mon mm. toubib c'est ouais, ce qu'on dit en France hein, quand je pars chez mon toubib <laughs> euh, et que je lui dis je lui dis lii ak lii moo may metti il me dit benn benn lenn rek moo la feebar muy stress alors stress euh, euh, dafay sonal nit yi nga xamante ni mm-hmm. ñooy ñooy liggéey yu bëri euh, fii Sénégal et on est pas mm-hmm. très c'est ce que je disais sànq mm-hmm. amuñu culture bi amuñu comme par exemple chez les banquiers xam nga ñoom la plupart par rapport ak xaalis bi wala ñi nga xamante ne ils sont souvent devant les ordi boo gisee dañuy dem ba stressé après ça va virer ba jox la genre AVC sa benn partie donc temps yi may liggéey doon gis y a beaucoup de banquiers yoo xamante ne dañ doon ñëw di def rééducation parce que problème yooyu moom moo leen di dal mhm. ils ont emmagasiné beaucoup de stress mhm. ba léegi léeg-léeg dafay soit tu perds la tête complètement wala nga jékki saay rek sa benn partie yaram day paralysé complètement mhm. donc c'est à dû à ce stress là éviter di liggéey ak stress ah évitons de travailler c'est pas bien c'est pas bien surtout le repos le repos il faut se reposer dans ton entreprise day quand tu es trop stressé doo mën a reposer doo mën a reposer loolu sax mooy stress parce que boo stressé doo mën a nalaw doo mën a nalaw doo doo mën a nalaw au fait. loolu mooy gën a mooy gën a yokk même quand tu après loo gis rek comme on dit euh, xam nga am na loo xamante ne amaana mën nañ ko xeexal suñu bopp comme stress. Mhm. xam nga yeneen am na yeneen accident de travail yi nga xam ne yéeg ci poto courant masse la yooyu peut-être mën nga ne euh, accidentellement mais. quand boo nee par exemple stress pour man nit ki ci boppam am na partition bu mu ci war a mën a def mhm. jéem a mhm. entre sa vie professionnelle et sa sa vie personnelle. Oh oui nit nit ki nit mooy toppatoo boppam. c'est ça ça aussi c'est la réalité euh, mais parfois loolu nga am da nga caa war a mm-hmm. concentré wu farlu ci mm-hmm. mais en même temps da nga toppatoo sa bopp as mooy di jël ay congé ay permission de temps en temps nga daw nag liggéey ñaari fan porté malade yooy yooyu yenn saa yi yenn saa yi wax dëgg yàlla am yoo defi nag ci ginnaaw nag daal di woote aloo man de damaa xaw a feebar fekk yaa ngi mbi fa foore sa bopp as gor day teral boppam ah day leen teral seen bopp teral leen seen bopp waaw yenn saa yi nga bandaas rek liggéey si ah man ngay waxal jërëjëf man baaraam bi laa laa daan laa daan laa daan man xamoon naan du ma yàgg ci effet dama fee teel a jóge man daa dama daan jékki-jékki rek bu wax ji soofee rek ma bandaas créé sama bandaas bu rafet yooyu noonu lu mu tudd passement alcoolisé man daal damay jël tooyal ko def ci yu naaj def ci flip bi fa foore def ci diw yaram bi tocc bi laa jël diw ko ci def ci oh. bi dakin bu fort bi nga xamante ne dafa xaw a mauve jël ko peinture ko peinture def ko rek teg sama bopp la su may liggéey suba rek roof ko ci laata bi ñu laa koy defee su ma ko roofee le matin je pars alors quand je su ma yegsee rek su ma wàccee sama oto rek damay suux nelaw ma biig lii laa alors les gens lay yërëm moo directeur qu'il fait da ngay noppalu maa xalaat da ngay nekk kër jéeg ji guddi bu subaa nga dem lekk mbaxal fële bu nga an ngay daan yooyu la ma daan wax gannaaw suba nga dem subaa nga dem kër garab daami fu ne nga taxawaalu fa boo ci bëggee yeewu suba teel di animé ci rajo bi yow lu raw feebar dina la daal del noppalu je te jure ah alors je fais c'est une bonne stratégie je fais ça deux jours durant après euh, voilà ñu may ma une semaine mm. waaw bi ñu ma mayee une semaine <laughs> man leen léegi damay toog sama kër man daal ba jënd billet war a dem Hollande dem ba fii rek ci aéroport bii rek tase ak koo xam ne dafa jege lool patron bi oh. foo jëm ma ne ko gam bi damay dem ci sëriñ da ngay ci sëriñ <laughs> bu <laughs> doon man dama après daw liggéey daw liggéey baaxul mais na ngeen fexe ba <laughs> na ngeen fexe ba <coughs> na euh, bu ngeen dee liggéey bu leen stress ray quoi. waaw bu leen stress ray mi ngi ko doon wax léegi. stress bi parfois na la def ci ñoom comme li fa xew bërki dem rek. ci Cap bi jege nañu mm-hmm. trop. Mm-hmm. gis nga ñoom bi fa xew policier bi dafa jékki-jékki. ñu ne stress moo ko solal wala solitaire jékki-jékki tiire tiire ci biir euh, non non non ci ay collègue mais ça arrive souvent tiré ci ñu def onze morts. mu yéen parce que au départ bi ñu ko déggee dañoo foogoo ne affaire terrorisme la. comme tubaab yi dans presque tous les pays du monde. même tubaab loolu la njëkk a wax même site yi bon que ça soit ñoom seen information yi li njëkk li a wax li njëkk a wax moo di affaire terrorisme la mais après ministre bi dafa def conférence dafa def benn porte-parole gouvernement bi dafa def benn conférence préciser mm-hmm. ne lii du du du ay affaire narcotrafiquant yooyu nga xamante ne

yi terroristes yi la euh, bon malheureusement y a eu des morts ah euh, heureusement ba du attaque terroriste aussi non non du attaque terroriste loolu la dina gën a fort ndax ñoom dañu rey par ñaar ñoom dañu rey seen bopp ba pare reyaale sans mais ñi ñu fóor yi terroriste yàlla nañu yàlla mos ci lii yow da nga leen xam xam nga lu waay gàtt dégg dégg dégg nga terrorisme nañu moytu nag gars yi ñoom du ñu rey par deux de ñoom dañuy rey seen bopp ba pare rey de deux cent ñi ñoom doy waar. c'est incroyable après on a tous peur ah. ñun ñëpp ñun ñëpp dañuy ragal léegi en fait. Ah non comédien bi defoon benn vidéo sur Facebook. waaw <laughs> nous on est fatigué même. c'est l'observateur si vous ici là non voilà bah. tu sais il a beaucoup de talent. non mais c'était il est même en train d'être il est même en train d'être contacté par la ah, même chaîne qui m'a contacté en France. ah ouais je te jure ah ouais ah ouais ah ouais je te jure ah ouais ah ouais. non mais. vous nous tuez <laughs> vous les terroristes. on va sortir. on va pleurer. on va mettre c'est vrai c'est vrai c'est vrai et puis ki indi woon euh, kii euh, kenn ci euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo indi woon attentat yi en France te ñu jàppoon ko Belgique démb lañ ko delloo France. waaw démb lañ ko démb la boobu démb la démb la woon Abdel Salam démb lañ delloo fële ci France. Euh, fas yéene ko waa France. par benn mais gis nga gisoo gisoo façon seen façon nu yi ngi wane vidéo surveillance yi xam na tubaab yi am nañu autorisation léegi ñi ngi génnee image yi ci ñuy def. Mhm. gis nga ni ñuy def dañuy ñëw fekk ful bu taxaw ñii ci aéroport yi gis nga euh, fekk ful bu taxaw ñuy def nii dernier seen dernier communication la ñuy retracé en fait. Ah. nga gis ngay ñëw ku taxaw fii jékki-jékki ci biir nit ñi fekk nit ñi toog nekk seen jàmm nga jékki-jékki rek laate bomb Mm-hmm. yàlla nañ ci yàlla musal bon voilà on, on voulait juste en profiter euh, ci euh, bis bi ñu jagleel ñiy liggéey te di ci am ay jafe-jafe pour parler de ce qui s'est passé euh, au Cap Vert Cap Vert nag dëkk bu neex la neex a dem vacances laa tuddee Praia man mm-hmm. boo fa demee takkusaan parce que a dem Praia Praia Praia takkusaanu Praia <laughs> lu waaye gàtt dégg dégg dégg Vert <laughs> loo ñàkk xam ñàkk xam ñàkk xam. ju baax ja falale. waaw lan yu mën maa ngi feneen ci beneen gamme laa génn. ton ton bu baax ba falale merci et 8h 8h 8h26. Papa Wemba j'aimerais j'aimerais qu'on parle de lui balaa ñu jàll ci publicité yi. Euh, j'ai vu que beaucoup de euh, beaucoup de Congolais euh, ont réagi disant que Papa Wemba deewul dee bu naturel. ils ont dit y a meurtre. dañ ko mos dañ ko poisonné. que dañ ko empoisonné waaw. bon ça intrigue un peu. mais ba tey amaguñ ci luñ ci leer. mais ñoom ni ñu ni ñu ni ñu ni ñu expliqué fee yi nee nañ dañuy joxe benn exemple ne nit ki daanu na ci vidéo bi li ñu gis nit ki daanu na am kuy dem di occupé wu ci micro ñoom ñu ne loolu lañ mënul comprendre. nit ku daanu voilà parce nit ku daanu. keneen dina mën a lijjanti leneen. non après après après après. ñu ne poison bi ñu ko def après ñun ñu ñun yàgg ci affaire spectacle saa yoo taxawee ci seen di nga gis am yokk ko ki ñëw. koro koro ñëw téye micro lu waaye gàtt gàtt regard fii ci télé bi rek da gis am tey ci suba rek bi may commencé gis ngeen ku yokk ko ki ñëw kurum kurum kurum kurum ñëw branchel ba micro bi euh, yenn saa yi seen toog en plein concert ah, mu ñëw yëkkati micro mais ce intrigue ce intrigue les mhm. bu doon da koo def rek delluwaat mais même bi Papa ba daanuwee ce qu'on a vu ci vidéo yi. Mhm. au lieu mu ñëw comme nit ñi ni ñu tiitee wër ko. Mhm. moom micro am rek la demaat téye. moom dafa dem téye en fait loolu moo gën a sonal loolu moo gën a sonal euh, nii c'est-à-dire bu fekkoon da ko delloo. da ko delloo mais xanaa xanaa micro bi li mu nekk li mu nekk ni mu nekk or moo tax. ah, ah man dama jàpp ne sax le micro est en léegi moo tax j'ai vu xam nga comme Sénégal tamit li ñu xewal moom la waa Congo yi xewal lu leen naqari rek. Mhm. dañuy filmer seen bopp dugg ci Facebook. Facebook yi waaw. yaa ngi dégg. <laughs> ca laa déggee congolais bi naan mboole ngeen de côté côté Ndaye Ndaye Molongo Kabule Molongo Kabunekele Papa Wemba yaa mët. bongole kongole eza nde na ye kombolo autopsie belgique nia kangale bongole langolo lingala bongalangala mbote ndaye saye yamat il faut amener le corps bolingo naye Kinshasa Congolo mhm. Brazzaville mhm. kangale Belgique mhm. j'ai l'impression qu'il disait foofu que Papa Wemba c'est a dafa am nationalité belge ou française kon nañ ko yóbbu ñu defal ko foofu autopsie euh, bon ben en tout cas il est mort et euh, voilà en tout cas icône la contre beneen contre euh, beneen euh, idée yi gars yi développé moo di euh, lii buñ ci développé ivoiriens yi sax la plupart loolu la ñu wax nee nañ lii buñ ci jéem a euh, indi benn jiixi jaaxa dee naturel la te moom lii la doon ñaan. Mm-hmm. yàlla may ko ko buñ ci buñ ci nekkaat di di jéem a soulever loo xamante ni vraiment daf ci indi problème. voilà son corps a été rapatrié. waaw sa tey la war a yegg si fële ci Kinshasa. boo mm-hmm. xamante ni ñu ko fay xaar. Euh, ñëpp ay juli ay millions nit ñu ngi koy xaar. fas yéene ko tey jébbal boromam. Mm-hmm. waxaguñu préciser wuñu kañ lañ ko fas yéene jébbal boromam mais tey lañ. maman Amazon mooy jabaram mooy jabaram moom mi nga euh. xamante ni père de 32 enfants. ah 32. 32 enfants oui. Nissan papa Wemba Mouem, travaillez, prenez de la FMEO. C'est le ki qui manque les moyens. mais yow ça di démb rek expliqué naa man fi ma jógee ma je viens de là-bas. fan la leen wax Bolingo Nayo man fa laa jógee ban. parce que xam nga ñoom seen xeetu bopp gawne yi. Kinshasa dañu xaw niroo ak moom nag. Kinshasa Kinshasa qui qui qui ça bon mais après dee na dee na voilà dee na et puis. Euh, et puis en plus nañu ko nañu ko nañu ko nañu ko ñaanal. gis nga démb. waa BFM TV waa Kenya waa Kenya démb gis nga lu ñu def moom balaa ma wax ci BFM TV. Mm. waa Kenya yi démb dañu jël benn agence euh, compagnie de voyage. moo jël benn busam. tatoué ko Papa Wemba, Papa Wemba ah. en guise de avant-hier rek on lui a rendu un vibrant hommage ci télévision Futur Média on a diffusé beaucoup de ses vidéos pour fàttali ko kooku nga xam ne ni euh, icône la nawle Youssou Ndour la des mm. artistes comme Youssou Ndour Baba Maal Ismaël Lo Papa Wemba Koffi Olomide je pense que euh, yàgg nañoo sigil euh, continent bi yóbbu nañu seen dëkk fu ne aujourd'hui très respecté on se rappelle de ces rencontres yi mu jot a def ak ay sénégalais mos na fi ñëw seet si Youssou Ndour ba mm. tey mm. ci jamono jamonoy. Euh, rollback Malaya si je ne me trompe. Mm-hmm. Soowaay euh, Soowaay Youssou ko fekk ji woon mais man je parle plutôt de bi mu fekk su Youssou Ndour suma suma suma fàttalikoo. Mm-hmm. Euh, Kumba Gawlo je pense que indi woon na ko fii aussi ci concert voilà mm-hmm. donc c'est un artiste que que tous les Sénégalais admirent. admirent surtout pour ñoom ñëpp ñëpp nga xamante ni nekkul ku ñuy présenté actuellement Papa Wemba nekk na koo xamante ni représenté na Afrique porté na drapeau africain kon Papa Wemba vraiment euh, qui repose en paix. voilà waa BFM TV ñoom. oui mais ñooñu c'est une ba li ma ci naax mooy bu fekkoon ñun ñoo def le contraire boobu lay gën a ñun ñoo juum ñoom dañ naan non voilà vous êtes incultes. dafa juum parce que ñoom bi ñuy annoncé ni Papa Wemba dafa dee dañu ne Papa Wemba mooy lead vocal bu. Magic System Ah. ignorance de leur c'est des c'est des ignorants. c'est des ignorants. Ces journalistes des ignorants. <laughs> il est temps qu'on qu'on enlève qu'on enlève l'ignorance. voilà <laughs> exactement. dans les ignorants. <laughs> Maintenant si vous avez envie de rester avec nous vous restez hein yéen ñi seetaan si vous ne voulez pas allez là-bas mais je reste convaincu que du ngeen fa gis lu leen neex. Après, vous serez obligé de reprendre la télécommande et de revenir chez moi. C'est ici, après la pub, on se retrouve. Si vous le voulez bien. Hein.